nee ci turu délégation bi yëpp. nee nga xam ni président Ablaye Wade moo leen yónni. nee ngir ñu ñëw fii. nee ñëwal ko fi. nee fii ci këram. nee ci fu mu miin. foo xam ne. nee foo xam ne. ba kenn jàppaleegul. nee ba kenn jàppaleegul. nee bokkoon na ci ñu ko jàppale. nee tey loolu du ko fàtte. dara xewee. ne kon su fi dara xewee. fa mu nekk. fa mu nekk. ne su ko mënoon mooy ñëwal boppam. waaye dafa wax ne. waaye xam na ne. ne kenn ku ne xam na ne. su fu muy tàmbalee. ne fu mooy Touba. loolu nag. ne loolu nag. bi nga xamante nii. ne bi nga xamante nii. tàmbali na. ne tam campagne bi tàmbale na. xew-xew bii am. ne xew-xew bii am. ci la wax Lamine Thiam mii nga xam ne ci la wax Lamine Thiam mii nga xam ne. mooy directeur campagne bi. mooy directeur de campagne bi. coalition wallu ne muy coalition wallu ak ñi mu àndal. ne ak ñi mu àndal. ni leen foofu. ne ni leen foofu. la fa xew. ne la fa xew. bu leen fa def benn xumbaay. ne bu fa bu leen fa def benn xumbe. dem leen la ngeen fa naroon def. ne dem leen la ngeen fa waroon a def. ngeen dem jaaleel ma. ne ngeen dem jaaleel ma. xam ne ñoo bokk naqar wi. nee xam ne ñoo bokk naqar wi. te di ko ñaanal yàlla. nee te di ko ñaanal yàlla. xare ko àjjana. nee yàlla na ko yàlla xare àjjana. Serigne Touba teeru ko. nee maam Cheikh Ahmad Bamba teeru ko. ak Mamor Diarra. ak Mamor Diarra. kon loolu rek. ne loolu rek. laa doon ubbee. moom laa doon ubbee. jox Lamine mi nga xam ne. jox Lamine mi nga xam ne. moo indi kaddu. ne moo indi kaddu. njaalu. ne kaddu njaalu. président Ablaye Wade. ne président Ablaye Wade. ci turu coalition bi. nee ci turu coalition bi. mu jottali ko ne mu jottali ko. jërëjëf ne jërëjëf Mbacke. asalaamaaleykum. ne mu ngi tàmbalee kàddoom ci baatu asalaamaaleykum. ñu ngi nuyu sëriñ bi di ko ziar. nee ñu ngi nuyu sëriñ bi di ko ziar. ci président. ne ci turu président. maître Abdoulaye Wade. nee maître Abdoulaye président coalition bi. nee président coalition bi. di tête de bi. nee nekk ci tête de bi. mu ñëw fii. nee mu ñëw fii. ànd ak njaboot gi yëpp. nee àndandoo ak njaboot gi yëpp. muy waa coalition wallu muy waa coalition wàllu. ak waa coalition yeewi. ak waa coalition yeewi. ñu àndandoo. nee ñu àndandoo. ci turam. nee ci turam. ñëw. nee ñëw. di nee di andi njaalam. ni ko sëriñ Cheikh Abdou waxe nee ni ko sëriñ Cheikh Abdou waxe fii. nee fii. dafay sunu kër. nee dafay sunu kër. ànd naa man ak président ba tey. nee ànd na man ak man président ba tey. mu ñëw fii. nee mu ñëw fii. ànd naa ak moom ba tey. ànd na ma ak moom ba tey. ñu dem Misra. nee ñu dem Misra. mu naan ma. nee mu di ma wax ne. fii mooy sama yoon. nee fii mooy sama yoon. ne dugg Touba. nee dugg juram waajuram. waa juram fii ko indi. ne fii la ko indi. ñu ànd ak ñu yóbbu ko. ne ñu yóbbu ko. ci ci maam Sëñ fallu ne ci maam Cheikh euh, Sëriñ Fallou Mbacke. nettali ma ci lu bari. ne mu nettali may lu bari. ci digganteem ak kër gi. ne ci digganteem ma kër gi. ba tey. ne ba tey. booy seet. ne booy seet. jàppale yi gën a dëgër. ne jàppale yu gën a dëgër. am ci ne yi mu am ci Mbacke. ak ci tuuba ak ci Touba. fii la gën a nekk. ne fii la gën a nekk. Euh, honorable mu ngi ma koy wax léegi nee honorable mu ngi ma koy wax léegi. ma ne ko ah fii am na lu ma ci xam lu bari. nee fii kay am na lu ma ci xam lu bari. ndax président ci boppam. nee ndax président ci boppam. moo may nettali. nee moo may nettali. digganteem ak kër gi. nee digganteem ak kër gi. kon nee kon. lu fi xew. nee lu fi xew. bu fi nekkoon tey. nee su fi nekkoon tey. mooy jëkk a ñëw. nee mooy jëkk a ñëw. itam njaal. nee deen di itam njaal. doomam. nee doomam. Karim. nee Karim. ndax bi ñuy ñëw moom itam. nee ndax bi ñuy ñëw moom tamit. xam na ni. nee xam na ni. suspendre nañu activité yëpp. boobu xam na ne suspendre nañu activité yëpp. ndax euh, lu day nii mënu fee xew. ndax xew-xew bu mel nii mënu fee am. ñuy nee ñu di fi yëngal dara. ndax ni ko honorable waxee. nee ndax ni ko Cheikh Abdou Bara waxee Cheikh Abdou waxee léegi. dañoo baaxoo. nee dañoo baaxoo. ubbee fii suñu campagne nee ñuy ubbee suñu campagne fii ci Mbàkke. ñëwoon nañ fi nag. nee ñëwoon nañ fi nag. ba sëñ bi. nee ba ziyaara sëriñ bi. ci fan yii. nee ci fan yii ñu jàll ñëwoon nañ ziyaara Cheikh Ahmadoul Mountakha. mais nag jàppoon. nee jàppoon. pour fii. nee ngir war a ubbee fii campagne bi. xew bi amee. nee xew-xew bi amee. ñu nañu teg lépp ci nee ñu ni nañu teg lépp ci suuf. président mi ngi lay. nee kon président mu ngi leen di jaal. mbokk mi fi jógee. nee mbokk mi fi jógee. xalifa nee di xalifa bi. di ko ñaanal yàlla. nee di ko ñaanal yàlla. wax ni incha allah. nee di wax ni incha allah. waxtu wu ñëwee. nee waxtu wu ñu ngi koy seenu. nee te incha allah ñu ngi koy seenu. dana ñëw ba fii. nee dana ñëw ba fii. jaale si. nee jaale si. ne ñu ngi koy ñaanal yàlla ne yàlla xare ko àjjana ne di yokk nag ne di sàkku ñaan ak barke ne ci lii ñuy dox ne ndax dañoo ñaan yàlla ne juróomi député yi nekk ci département Mbacké ne ñu ñaan yàlla ne gañe ko ne awe foofu ne suñu intercoalition bi am majorité ne am majorité. ci assemblée nationale ci assemblée loolu la ñuy dox. ne loolu ci la ñuy dox. moo tax ñu lëkkaloo. ne moo tax ñu lëkkaloo. boole ne boole. coalition wàllu coalition wàllu. ak coalition yeewi ak coalition yeewi. seexale leen ne seexale leen. dëkk boo dem ne dëkk boo dem. dañoo boole. ne dañoo boole. sunuy ñooñ ne sunuy ñooñ. ci benn liste ci benn liste. fii nag ci Touba xobu président Wade. nee ci xob bi nga xam ne mooy xobu président Wade. xobu wàllu nee muy xobu wàllu. ci ñëpp di nee ci la ñëpp incha allah di wote. nga ñaanal ñu ci barke. nee sëriñ bi nga ñaanal ñu ci barke. loolu moo doon kaddu yi. nee loolu moo doon kaddu yi. nee yi ma indi. nee ci turu président Wade ak njaboot gi yëpp. nee jërë ngeen jëf. barakaatu ñoo ngi leen nuyu ci turu Serigne Cheikh di sëñ Mor Diarra ak ci turu njabootu sëñ Mor Diarra gépp ak ci turu njaboot suñu Abdoulaye mu fi bàyyi ko den delloog nuyoo ak cant ak ngërëm ci ñaari yëf mooy tànk yi nga xam ne am na lu dal suñu kaw ngeen bokk kook nun daggal ngeen doon def ñëw gis nañ ko yëg nañ ko jërë ngeen jëf ci loola cër bi ngeen jox kër gi it ba waroon a def manifestation bu rëy ci meeting annulé ko ngir kër gi it yëg nañ loola kon nag yàlla yàlla fay ci ñaari cër yooyu jéegi ngeen ndox ba agsi fii itam ngir di sàkku ñëw ngeen fi ngeen ko war a sàkkoo ndax fii ëttub fajukaayu aajo la aajo ju ne fajo na fi surtout bu ji jóge ci président Abdoulaye Wade ndax kër gi def koo ñor yoon wi ñor ko sëriñ bi ñor ko liggéey bii loxoom duggoon na ci muy jumaa ji dugg ci duggati ci kon nag nga xam ne aw jiw lañ ko ëmbal fii ngërëm lañ ko ëmbal fii ak jàpp lañ ko def lañ ko def fii ci kër gi bu toon bu moom it ñii ngeen jiital ci muy sunu njabootu bopp di jarbaat sëriñ bi di doomam tàmbale Abdou di jarbaat sunu jarbaat Abdou Mbacke Ndaw sëñ Abdou mii nga xam ne doom la ci kër gi te jëf ci kër gi tam ndax lu ñu fi mas a yëngatu di fi woote ñëw na fa def ci loxoom ak sëñ Cheikh Thioro kon ngeen xam ne daal seen kër ngeen ñëw fi ngeen war a ñëw ngeen ñëw li ngeen war a sàkku fi ngeen ko sàkku sàkku ngeen fi ngeen ko war a sàkkoo yëg nañ ko dégg nañ ko jàpp nañ ko ñaan nag lañu am ñoo ngi leen di ñaan yàlla defal leen seenu bëgg mu ànd ak jàmm topp ci ak la ca war a topp topp ci sëñ bi xolam sedd na ci jéego yi ci ni ma ko waxee léegi njaboot gi nga xam ne ñoom la fi sëñ Abdou Baye itam muy ku sore woon ci nun ndax dafay jataay bi dafay gàtt mu doon ko amoon yéene liggéeyal Maam Jaara ko amoon yéen liggéey ci réew mi yàlla yamale ko foofa te xam ne loolu rek moo soob suñu borom kon nag sant nañ leen bu baax ci jéego yi ci jëf ji ak xalaat bi ak tànk yi jot leen ak sant président Abdoulaye Wade bu baax yéen ñi fi nekk sant nañ leen bu baax moo mënoon ngeen ku ñëwoon rek ci yéen doy na kenn ku ci ñëwoon ci yéen rek doy na waaye ba ngeen daggee lépp ànd yëpp yéen yëpp ngeen ñëw xam nañu jëf yi gi ñor na leen bokk ngeen naqar wi bokk ngeen woon tiis bi yàlla yàlla fay te jàppal leen defal leen seet bëgg ci barke sëñ moo jaar ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kàddu yooyu la sëñ mën nañ leen ko jotali te sant leen bu baax yàlla yàlla defal ndam ci li ngeen di wuti délégation bii nga xamante ni mooy délégation président Ablaye Wade moom bi nga xamante ni moo di coalition Wallu Sénégal ak entre coalition Yewwi bi nga xamante ni yàlla def nañ bis bi ñu waroon a def bii tey bii la si département Mbacké bi nga xamante ni jàpp nañu ko mun a far xeexoo bi am président Ablaye Wade joxe ndigal bi bu fas kenn def benn yëngu-yëngu ndax moom daanaka Serigne Touba daal di wax délégation bi danaa Lamine Thiam a campagne ñëw fekk si ñun ñii nga xamante ni doom la si kër gi bokk ci coalition boobu Yewwi ak Wallu ñu ñëw lan waroon def meeting mu ñëw fii mu di am njaal moo xam ne président moo leen fii nga xamante ni kër Serigne bi xale la ba ku ne xam taxawaayam ci liggéey si Ahmadou Bamba ci liggéey si seen waajuram seen moom Faye kenn mësu koo dégg ci mbirum àddina. dëgg la. kenn mësu koo ci lu ñuy xeebu yoon ñu ngi woon ci doylu fu si àddina tase ba gis que donc li mooy Serigne Fallou te tànk yooyu la ak moom ak galas bi bii si doomu muy ku baax nit am jom nit ku xam li ko maam la koo mu jël la fekk si yàlla fekk kii nga xamante ne waajur la nga xam sëriñ Abdul Xaadir imaam imaam yi mooy waajuram ñoo xam si taxawaayam ci dëkk bi kon bu ñu ko fekkee fii ci kër gi tey mooy kilifa kër gi. ñu ngi leen di ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee di leen balu àkk di leen bal ak nee di leen ndokkee lit di bis bu tedd bii ñu génn nee muy tabaski nee yàlla nañ ko fekkewaat na ngeen di déwén nee ñu ngi leen di tontu nag ci turu suñu aboo mi nga xam ni mooy kilifa kër gi ne ab turu sëñ Fallou mii nga xam taawu borom kër gi ak i rakkam ne ak mbokk yi ngeen fi fekk yëpp ne ñu ngi leen di gërëm bu baax ne ci seen taxawaay bi ne ci bisu sunu mbokk sunu xarit sunu mag bi sunu sëriñ ne muy sëñ Xalil ne bis bi ku ko rek. ne ñu yëg ñu ñun itam ne te lii ngeen def ne yëg la ñu ngi leen di gërëm ne di leen sant bu baax a baax ne di ko teg ci loxo loxoy Lamine Thiam mi nga xam ni ne moo jiite yoon wi ne waaye di ko teg ci loxo sunu doom ji di Abdou Mbacke ne ak sunu jarbaat bii di Cheikh Abdou Ndaw ne ñoom sax mënoon na leen a tontu. ne ndax ni ñu demee ci kër gi rek. ne ñoom it noonu lañ fi deme ne mënoon nañoo ànd ak yéen ba agsi. ne ngeen wax. ne ñu bàyyi leen ngeen ñu tontu. ne ndax kat noonu la deme ci fii. ne kon suñu xol sedd na bu baax. ne ci seen tànk yi nee ñun it ñu ngi koy jaar nee ndax kat suñ xal yi suñ xal yi ñëpp la nee ci gi yaatoom nee ak ku wayafam ak toroxloom ak bëgg-bëgg nit ak jaxasoo ji mu jaxasoo ak nit ñi ba tax na nee bisam dikkee rek nee murit yëpp nee dafa mel ni ñoom ñépp ñoom la daal nee kon nag nee gërëm nañ leen bu baax nee xam na amu leen jot fu mu toll nii nee ndax du du nee fa ngeen war a dem bari na nee kon ku ngeen ci jox rek nee xam na ni bàyyi ngeen ko xel nee kon suñu xol sedd na ci bu baax nee njaboot gi yëpp suñu xol sedd nee ñu ngi ñaan yàlla nag nee li suñu borom diggee nee ci képp koo xam ne yaa ngi am kóllëre nee di jokk ak bokk nee aw yiwu bëree bëri la ci suñu borom wax nee kon nag yàlla na ngeen dajeeg loola amin nee lii nga xam ne moom ngeen jëm itam nee te réew mi yëpp jëm ca nee dinañ ñu ngi ci ñaanal bu baax a baax ne yàlla may leen ci ndam ne di leen delluwaat di leen dénk suñu bokk yi itam ne ndax si Abdou suñu doom la ne Abdou Mbacke ma ndaw ma la tamit suñu jarbaata ne ak ñeneen ñu mu àndal ñoo xam ne ne ci waa dëkk bi ne ñoom ñëpp ñun ak ñoom benn lañu ne kàddu yi mën naa bañ a gudd ne ngeen xam ni daal daf ngeen lu rafet nee ndax kat nit dafa amul lu dul waajuram nee saa bu ko ñàkkee nag nee gu ñëw ca moom nee ànd ak moom ca naqar woowee nee moom dana am fu mu la teg nee kon nag nee bokk yëpp sant nañ nee gërëm nañ leen nee lii yàlla buñ leen ko gaaw a fay nee yàlla buñ leen ko gaaw a fay mukk nee ginnaaw loolu nag nee ñu ngi sant bu baax nee ki nga xam ne mooy seen kilifa yéen nee muy maître Abdoulaye Wade nee diggante Abdoulaye Wade ak nee diggante bu yàgg la nee dégg naa ko yoon mu di ko nekk lil boppam nee wax lu sëñ Modou Mamoun moo ko boole woon ak moom nee ndax baayam dafa amoon kóllëre ak sëñ Modou Mamoun lool nee daa ko fa yóbbu nee sëriñ Modou Mamoun yabal ko ci sëñ Fallou nee lu yàgg la nee ndax daan na ko nettalil boppam nee digganteem ak sëñ Abdou Khadir itam nee fekke naa ci lu bari nee bis ba mu koy jox boppam nee teewe naa ko nee kon nag bu dara xewee fii nee leer nañu bu fi nekkoon nee kenn du ko fi jiitu nee ndax digganteem ak Serigne Fallou nee ak digganteem it ak waa Touba nee loolu ma dégg Serigne Mountakha wax leen ko nee doy na sëkk. ne ñaari yëf yooyu nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moom la wax ni su ko président Abdoulaye Wade defoon rek doy na sëkk. ne doy na sëkk ci ñun murid yi. ne muy titre foncier Touba ak suufu Massalikul Jinaan ne ñaar yooyu rek. ne ñaar yooyu rek doy na ci résultat boo xam ne. ne ñaar yooyu képp bu ca yemoon def ko rek murid doot ñu ko fàtte mukk ne rawatina nag ne mu jël boppam ne fu mu mës a fu ne ne day wax ni moom waa réew mi la waaye moom buntam nag Serigne Touba la ne kon ñu koy gërëm bu baax ne di ko ñaanal nag yàlla dolli ak wéram ne ak kàttanam ne li mu yéene moom itam ne fa tabaarakallaa suñu borom li ko tamu teewe ne jërë jëf ne sant na leen bu baax ne na ngeen ñu santal président ne ak booleem ñi ngeen bokkal coalition bi ne jërë ngeen jëf ne yàlla yàlla taxawu leen ne da def ci réew mi nag jàmm ne ndax jàmm amul prix amul njëg nee lu ñuy def lu nekk rek nee nañ ci jiital jàmm dëkk nee nga xam ne dëkk bi moom nee Serigne Touba dafay ñaan jàmm nee xat-xat mën naa am xët-xët mën naa am nee tiitaange mën naa am waaye lépp jàmm rek day mujj nee nag nee ñu ngi ci dañ ci dugg ak bismillahi rahmaani rahim ne jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ne tey ki nga xam moo gën ci mi ne gën it ci population bi ne suñu borom taxaw ko ba mu jot ne ci la muy yóot ne jërë ngeen jëf ne sant nañ bu baax kon nag yaakaar naa ni